auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom tuba mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen gannaaw loolu noo ngi santaat bu baax a baax borom tuba di rafet lu itam dikk yi nga xam ne dikki ngeen ko fi ngir wane jëf ju rafet ji nga xamante ni euh, soxna mu Kalsum Faye soxna mu Faye Fetto mi ngi ko ànd ak mboolem njaboot ji ànd ko ak bokki taalibe yi di ko di ko saxal te wane gi itam dana tax ñu bare bari mën cee roy ndax wane lu baax moom ak fesal ko day tax rek ña nga xamante ni xamuñu ko woon wala nekkuñ ci woon ñu mën caa ne loole roy roy roy lu baax lu baax la te lu yàlla digle la ndogu yi nag soxna si mi ngi koy dundal ak léegi yàgg na lool mën nañoo wax ni def na ay at ni mu tëddee mooy euh, saay boo xam ne weer wi feeñ na euh, ci la koy door ci ab xëdd loo xam ne da koy def yóbbu ko ci mboolem daari alxuraan yi euh, lim bi itam takku na lool ba xëy na mu ne su ko lim du lu ñuy lim di ko takk ndax ku ci yàlla boole rek ci nga bokk noonu noonu la tëdde nga xam ne lépp loo xam ne itam des na ko berndee rek eh, ci ay ndogu dana ko ci dana ko ci def ci am kattanam noonu yi la la tëddee di ko ànd nag ak mboolem bokk yi mm, ci pàcc yi fasantikoo ndax bu yàlla dogalee weer wi feeñ bari na bokk yoo xam ne dañuy bàyyi seen yitte bàyyi lépp loo xam ne jàppoon nañ ko ñëw di ko ànd ak moom di ko dundal Euh, ci wàllu cosaan li nag xëy na buñ ci dikkee tuuti ci bëgg gi alxuraan ak féetewoo ak alxuraan di ko liggéeyal loolee day doon loo xam ne lu lu mën a nekk lay doon bu ñu gisee jëf ju jëf ju ni mel ndax mboolem waajur yi nga xam ne ñoo ko meññi meññi bokk yi nga xam ne ñoom la àndal ñoom loolu rek moo nekkoon seen yitte ndax buñ ci tuddee ko mel ni Cheikh Mamadou Faye di borom pàkk bi ñu toog mu fi dundalee liggéeyu sëriñ Touba bi di ndog yi jëm ci daara yi alxuraan yi bi muy ñëw ci borom tubaa bi muy ñëw ci borom tubaa boobee borom Touba mi ngi ci liggéey bi ne ci géej gi mu ñëw jaayante borom daarul moxti boobee bokk na ca la nga xam ne waxoon na ko sëriñ bi mooy daara joomu yóbbu kenn duma fa dàq alxuraan te kenn duma ci mën te it kenn duma mën ci liggéey ba maanaam kenn duma mën ci tool ya donga yee ba ñu demee ba ab diir ndax xam ngeen ne borom daaru moxti ku bëggoon jàmbaar la ku bëggoon alxuraan la ba mu demee noonu la nekkee woon boole liggéey bi boole bu guddi jotee mu fanaanee jàngal donga yi nga xam ne ñoo fa nekk mu fanaan leen jàngal alxuraan ak ñeneen ñoo xam ne indaale woon na leen fa ba ñu wattu alxuraan te di yàqu dara ci seenub liggéey xam ne bu guddi jotee daan fanaanee wetal boromam fanaanee jàngale itam alxuraan ba am na ñoo xam ne ci noonu lañ wattu alxuraan mu doon koo xam ne noonu la àndee woon ak borom daaru moxti dongo yi am nañu ko ca yokkal loon ak tabe xamal borom daaru moxti ne ko moom kat xam nañ ne mat na jëwrin ndax mboolem lim la waxoon mi ngi ci moom waaye tam da ca yokk sax loo xam ne xëy na xaale ko woon muy lu mu am bokk kook ñëpp xëy na loolu kon dina doon cosaan ci bu fekkee soxna si mi ngi taxawu lu mel nii xëy na loolu dana ci doon cosaan ku mel ni Cheikh Aboubacar Mbaye itam nga xam ne ci mag ñi àndoon ak borom Tuubaa la fekkoon ko xamak ba muy dem dafa yóbbaale ab kaamilam daan ko xam ne eh, alxuraan daan nekkoon yitteem moom ko wattoo itam daa dem wuy ji boroom Tuubaa noonu la ca nekkee woon doon jàng ak jàngale moom itam àndoon ak sëriñ bi ba ni ko sëriñ bi booleeg borom daarul moxti kon liggéey bu ni mel soxna si ko dee amal xëy na lu mën a nekk la waaye ci kàddoom rek ñu soñ soññi mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko baaxoo àndal ñoom tamit lañuy def def fardu kifaaya la di farata joo xam ne bu fekkee ne ñëpp maase nañ ko bàyyi ñëpp maase am bàkkaar bu ko ñenn ñi taxawoo mu wàcc ñenn ñi kon ñooñee jullit ñëpp dañ leen a war di taxawu ci lépp bañ mën a taxawu loolee nga xam ne ñëpp la waroon Euh, mu doon loo xam ni euh, ñenn nag su koy faral di fàtte waaye soxna si foofii la jëmee ab liggéeyam ci fexe ba euh, bu fekkee ne dongo bi xiif na na lekk bu maree na naan waaye bu mu tilim ba nga xam ne loolee nga xam ne moo ko tax a jóg mu di ko sàkku dana mën a yemb ca na mu gën a rafetee ndax bu fekkee ne du weeru koor da koy dundal bu baax a baax liggéeyub alxuraan bi ci taxawu dongo yi ci ak col ci di leen taxawu itam eh, ci ak cat di leen taxawu itam ci ak dund ndax bu dul weeru koor ndogu yi ngeen di seen dimanche bu nekk lay doon ab añ lay doon boo xam ne day dem ci ci daara alxuraan yi di sant bu baax nag jëwriñ yi nga xam ne ñooy njaboot gi nga xam ne ñoom la soxna si àndal ndax njabootu boppam ñooy ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ak itam mboolem mbokk taalib yi nga xam ne rek namm nañ di ci dugal seen loxo soxna si itam mi ngi leen ci woo di leen ci soññ ndax liggéeyal yàlla la liggéeyal Serigne Touba la euh, te itam Serigne Touba dafa waxoon ne su ko mënoon boppam mooy toog di ko defal boppam muy jàngale alxuraan kon ña koy def lu waaye di def ci ñoom yaa nga koy defal Serigne Touba ñooñee ñooy ñooñ Serigne Touba euh, kon mu doon loo xam ne jëwriñ yooyu yëpp nga xam ne ñu ngi ciy yëngu nag ñu ngi leen di jaajëfal bu ñu bu ñu limee dañuy juum waaye dañuy lim rek ku mel ni ki euh, soxna maam jaara jaw moom tam nga xam ne bu weeru feeñee day bàyyeekoo koo Kaolack ñëw ànd ak soxna si liggéey bi di jiite waañ wi ku mel ni Serigne Daoud Tine docteur Diop ñooñu ñëpp ak nag ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal soxna si yëpp muy ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër Cheikh Mamadou Faye Fetto lool yi doon loo xam ne ay leeral la yu ñu bëggoon a indi yéen waa 28 pro ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci jàppandal geek euh, jàppandi gi ci lépp lu baax di leen ci jaajëfal bu baax di ñaan suñu borom ful te yokk te doon leen taw feex barkeb euh, borom Tuuba salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum yéen mbokki jullit soxna Oumy fay diggante euh, lu mat fukki at ak nii reeram bii bu dul dima bu dul koor gii dimanche ju jot mu sóor ñaar fukki kilo wala fanweeri kilo Oumy bëggut or bu euh, lal bu baax bëggut néeg bu baax bëggut col gu baax ndax dongoy tey ji saretu ginaar lañ si wàcc saa yu ñu xëyee fanweeri junni dinañ ko dépassé te loolu ndimbalal yàlla ak Serigne Touba ngir rek. yéene ju mu am yéene joo xam ne di dundal doomu aadama yi di dundal euh, dongo yi loolu rek moo ko ci moo ko ci euh, moo ko ciy dàppale waaye du am amam dug leen nam lu nag bëgg-bëgg gi ko bëgg ak yëg-yëg man day yéene naa ko waaye lii mu attan ak xolam bi lii muy yéene bëriwul ñu ko man ndax tey ji lii muy fere weeru koor ba weeru koor wi dee ngay fere ay ñaar fukki junni ay fanweeri junni ah te war a am sa oor war a yor sa njaboot di leen ci jàppale lijjantiwul lenn lu dongo yi rek la lijjanti kon na ñu ngi koy ñaanal lii muy sëmb ñun ñëpp mu dugal ñu ci lu baax kenn ku ne mu yéene nga am euh, sa soxla sa sa dërëm boo ci def ndax kenn ku ne mënoon nga koo def te doo doo awale fii waaye yàlla ji ko ci indi fii ci suñ koñ bii mu xiir ko ci kenn ku ne mu bëgg ab dërëm boo ciy def bëgg aw ñaar woo ciy def bëgg ñoo dimbali dongu la. soxna Oumou Kalsoum Faye mii nag moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. ndax doomi daara la ci daara la juddu yaru ci ba màgg nii mu mel moo tax lii la de bëggul benn dongo taxawaalu suñ koñ bi yalwaan da leen di fóotal da leen di toggal da leen di sang dongo yi ci këram gi boo fi ñëwee fi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan ku dul dongo sax soxna ummi fat na ko dongo yi ñoo ci mujj ku dul dongo soxna ummi fat na ci këram gi defar ko ba mu baax jaareel ko ci yoonu baax moo xam nag li mu bëgg ci xolom bi yàlla na ko yàlla defal ak alxuraan bi muy liggéeyal yàlla na ko fay gën gi fay teew rek nuyu naa la sant la di sant euh, soxna ummi mi nga xam ni moom moo waral lépp dañ koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam li muy liggéey ci yoon wi yàlla na ko yàlla daje ngërëmu sëriñ Touba ak arxuraan lim liggéey yàlla nay denc buñ ko dencal boo xam ne boo ëllëgee yàlla na ko fa fekk ak képp koo xam ne ànd nga ak moom. di ñaanal rek taan ummi man moom damaa mënta wax waaye li ma koy ñaanal gudd fan ak ak yàlla na turam mi fu mu bëgg a yegg daal yàlla na fa yegg. yal na ko yàlla suñ Tuubaa jàppale ak barkaar alxuraan euh, man sama première kàddu mooy lu ma ne bu soxna jaar bu soo ñëwaatoon dinaa defaraat sama toogaay ndax soxna jaara da daan def lu baax di ko wax di jàng alxuraan mooy soxna muy fay mii day dekkal alxuraan keroog bi ma njëkkee ñëw premier jour koor gi ma ne ko ah tey ñoo taal mbane ci waañ bi dana ma nañ ko taal ci mbedd yi di tuur sebet mi ci mbedd bi nit ñi di ci dëgg suñu borom di leen jéggal kon ku am mi ngi nii kuy bëgg roy ku baax te war koo roy rek moom bu la raw man de war na Serigne Touba Mbacke man mooy sama idole man mooy sama idole ci lu muy def lépp nag su ma ko mënoon toppandoo sax ci doxin dama koy toppandoo xañ na yàlla moom moo bindeewul nag bind bi yamuñu mais lépp yëngoom ak dalam yëpp si sama idole la kon may gërëm waa waañ wi ñi nga xam ne ñoo ci jàpp di wax ne moom yaa umi mii day faral di wax ne kenn du faatu ba santay topp la wala kenn faatu ba sa topp la donc ku faatu alxuraan lañ lay lañ lay moo lay topp dañ naan wal dongal daara bi mu wàcceel ko kaamil alxuraan kon dong yi tey mooy suñu àdduna ñooy suñu àlaxira war nañ leen a fonk képp ku ciy doxantu sax war ngaa jël puso def ko ci sa saak ndax dong boo gis lam sol yeesul nga yeesalaat tey dong yi ñooy réew mi ëllëg ndax ay lañ surtout ñun jigéen ñi te jigéen mooy jur jigéen mooy yaay ku fi baax jigéen na la jur maam Fadou Welees maam Soxna Jaara maam Seynabou Ndiaye képp ku fi baax rek jigéen la jur kon ñun jigéen ñi war nañoo defaraat suñu toogaay war nañoo yaraat suñu bopp war nañoo xoolaat kër yi lan moo fiy dox li yaa ummi wax rek ñuy ut ay bool yu baax di leen ci tibbal. ay coono yu métti yoo xam ne boo ñëwee damaa defar ne ma kat lépp la bëgg fas ko rek si añ añi donga yi fas ko ci di ko ab tey maa ngi nii tey jii am naa jëkkër te ñaana ko si yàlla am naa ko si mu defar ma nag isaan ko gis te yaakaar ni moom ma jur te barke Serigne Touba Mbacke juruma mais dama def comme doom ju mu jur barke Serigne Touba Mbacke di ko ñaanal nag bu baax ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi loolu te ñu yàgg ci ginnaawam te wér di jëfee ndigal bàyyi tere di sant bu baax sunu borom tabaaraka wa taala moom mi ñu bind te bu ko neexoon def ñu mala waaye mu bind ñu def ñu doomu aadama wëlbatiku bind ñu boole ñu ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defaan ñu ci tànn sëriñ Tuubaa bi ñu dëkk fii ci Touba war sant yàlla bu baax di wax ne dëkk bii bi ko borom di sanc jàng ak jàngale rek a taxoon mu sanc ko kon ku fi nekk di jàng ka jàngale moom nga fi nekkal ku fi nekk di taxaw jàngalekat itam ak ñuy jàng ñoom nga fi nekkal ñu am yéene lool ci loolu ko sëriñ sëriñ Tuubaa bëggoon tax ñuy jëf-jëf ji jëf ji nag jëfuñu ko sëriñ Tuubaa rek la ndax mënuñu ko kon kon luñ mënut buñ ko jëfee sëriñ Tuubaa la waaye nag wax na ni boo ma defalee li nga man ma defal loo mënut nga defal ma li nga mënut ma defal la jomb kon ñuy dàkk bëgguk sëriñ Tuubaa ci alxuraan ndax dafa wax ni alxuraan buñ ko dee jaay jaay nañ ma ko buñ ko dee maye may nañ ma ko buñ ko dee leble lebal nañ ma ko te tey bisu tey bi firndeel ko ndax xale bi nekkoon Dubaay daje faak juróom benn fukki réew moo jël deuxième te gën fay ndaw xale bi demoon Abidjan daje faak Afrique gépp moo jël première te gën fay ndaw xale yi nga xam ne ñoo jóge woon Touba dem Dakar daje faak seeni morom ci Sénégal ñoo jël première ak troisième ak deuxième ñëw fii ci tuubaa kon loolu firnde ne ne Serigne Touba li mu waxoon ci alxuraan dikk na ñu sante yàlla bu baax dëkk di ko fi yor ko fi ci dongo mu am fi ci daara amul ci beneen dëkk kon nag ñu war a xam li ñu am taxaw bu baax tey jigéen dañoo wax ne jigéen moom moo yor réew mi bu jigéen ñi mbaaxee gone yi baax lépp baax te baaxu gone yi mi ngi ci baaxu jigéen ñi ndax ñun ñoo am moyens yi nga xam ne ñooy jàppale daara ndax daara ñett rek la am moom rek la bëgg xiif lekk feebar faju tilim set te loolu jigéen ñi mën nañ ko ndax jigéen ñi ñooy togg kon bu ñu bu leen neexee doo duñ xiif kenn ku ne bu jëlee bool ko ba set wut kubéer fa ngay tibbale sa doom ak sa borom kër nga di fa tibbale dongo ba dongo ba du ŋàbb po yalwaani waaye ne alxuraan laa bëgg ab jullit laa muy obligatoire ci ñun a ah, ñuy jàng ci sawet xale yore pot yu ay pot yoo xam ne ambulance péri la pare nañ ci ba sànni ko ay poti beurre ay poti chocolat ñu leen ciy tibbal ay ñaag di leen ko jox loolu rafetul ci der deru alxuraan te nga ne alxuraan nga bëgg li nga bëgg nag muy alali yàlla bala ngaa lekk war naa lekk bala ngaa naan war naa naan bala ngaa faju war naa faju te li ma ki ma gënal ci nit ñi mooy kii jàng kiy jàngale ki am xam-xam ba pare di ko wëlbati ko di ko xamlewaat moo ma gënal ci nit ñi kon nag ki gënal yàlla ci nit ñi moo ñu war a gënal te alxuraan moom obligatoire la ci ab jullit comme nag obligatoire la ci jullit moo ñuy gunge sunu dund moo ñuy gunge sunu yomal xiyam war nañ cee gën a taxaw bu baax xam lan mooy alxuraan te xam ne waxi sunu borom tabaaraka wa taala la yemut ak dara ñu téye ko bu baax. ndax li nga li nga li nga téyewut kat boo bëggee bu ëllëgee mu téye la coono digal la ndaxte loo loo gëm bëgg ko danga cey sonn. boo ca sonnee bu ëllëgee boo ko soxlaa mu ñëw waaye den nag daara ji amuloo daara ji benn njëriñ amuloo gone yi benn njëriñ nga faatu ñu ne nañ woo gone ñu wàcceel ko kaamil dara du ca topp ndax du lu tax dara du ja topp faalewoo woo ko woon yëgoo ko woon boo sarax amee bu mu xar yoot leen nga am des boo xam ne musiyaa ci des nga yót leen loolu du wàllu jullit nañ fas yéene téye daara yi taxawu leen xale yi di lekk lu baax di sol lu baax sëriñ daara yi kër yi rafet ñoo ko war a gën a am oto yi rafet ñoo ko war a am lekk gën a baax ñoo ko a am ndax li nga xam ne moo gënal suñu borom tabaaraka wa taala ñoo moo ci nekk comme nag ñoo ci nekk nekkal ñu ci ndax wax nañu benn bis bu ñu ko amoon jànguñu arafu alquran sa borom jaxasi suuf seeg ndox mi kon ñoo ñuy jàng alquran ñoom ñoo yore kenn gi kéere ko ne gi ba mbaar mi daanuwul na ku bëgg a tëdd ca maan ma ku ne war ngaa taxaw ka yor kenn ko kon nañ taxaw gone yi bu baaxa baax ak sëriñ jaare yi man de wax dëgg yàlla li ma man guddi ak bëccëg fas naa yéene di ko ci def sama kem kàttan mënuma dara nag ndax waaye nag dëkkandoo yi jàpp nañ ci nit ñu baax ñi jàpp nañ sama njaboot gi jàpp nañ ci ndax liggéey bii dégg ma ci taal ba di xam déw ma marché xaalis bi guddeeg bëccëg ñëpp a ngi ñëw ñee ngi indi ceeb ñee ngi indi diwli ñee ngi indi ab xaalis waaye kenn ku ci def peppu ceeb ceeb boobu yàlla na sa borom sotti ko ay xéewal ak ay at ak barke